Bienvenue sur Salam Vision. seen jëf lu ne fàng di su ko woon borom mi ba te lu nit ñiy laam-laamee ak di ko weddi waxoon naa leen ku waru naaru góor jaar ci mpencu tëj fa juróom-ñaari bopp luq fa fukki bët ñaar ne ma bu leen dëppee rey fa na ko gam nee naa leen weddi gis bokku ci ku weddi li may wax ci wàllum listixaar ak wàllum seet ak wàllum ñaan dara di seeti Serigne Dame Lo Serigne Dame Lo di ku Serigne Saliou tàggat ca daaraam joojee Serigne Saliou Mbacke daal di koy yar Serigne Dame Lo lu mu def sa bët ubbi ji leen journal ba ko xëy di waa joojee loo wax ci moom am na loo bàyyi Sud Quotidien moo dëggal loolee di Serigne Dame Lo nee na nu bisab Serigne Saliou boobee daal bu jotee Serigne Dame Lo lu du wàllu berndeek lépp lu xamante ne nii lu war ca bis ba Serigne Dame Lo dina ko daal di def Serigne Dame Lo nekk ko nga xamante ne nii day yëngu ci wàllum seet ak wàllum listixaar kooku daal ku mu ñaanal noo man di def da ngay daal di delsi man mi am naa ci lu ma leer Sud Quotidien mooy dëggal loolee ubbi ji leen laa turbe ne di ngeen fa fekk Serigne Dame Lo moomee nekk foofee ndeysaan nekk koo xamante ne nii ku Serigne Saliou Mbacke may la ku yàlla baaxal la ci Serigne Dame Lo ma ne ko soo ko bëggee jot nooy def ñu ne da ngay woote ci 77 215 33 77 215 33 Serigne Dame Lo mu ma noone gars waxoon naa leen weddi gis bokku ci te waxoon naa leen lu ne fang deesu koon boromi bët Serigne Dame Lo ngi noonu nekk ah seetkat boo nga xamante ne nii ku suñ borom baaxal la nekk ku Serigne Saliou tarbi la ah nekk ndongaam Serigne Saliou ci Serigne Dame weddi gis bokku ci man mi defal na ma ma gis ci Serigne Dame Lo mu nga noonee gaañi bu ko kenn tardé numéro baa nga noonee di 77 215 33 ci Serigne Dame Lo sekkatab ba yàlla baa ngi noonee ah def mu jeex Serigne Dame Lo mu nga noonee ci Serigne Dame Lo defal nit ñi gis. lépp xëyee ko l'observateur nee nañu waa joojee loo wax ci moom am na loo bàyyi de te ne woon naa leen ku waru naaru góor jaar ci penc toj fa juróom-ñaari bopp lu ko fa juróom-benni bët dóor ne leen bu ma dépéeree fa na koo sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad internet yi nga xamante ne a ñuy baaxoo suivre saa su bu xam ne mooy Salam Vision di jàmm ju ànd ak gis-gis saa su ne bu ñu jógee ci jàmm la dox waaye itam ci gis-gis boo xam ne dana mën a jëriñ réew mi jëriñ askan wi moo tax ñuy yëngu saa su ba tax na tey gis ngeen ko ñu ngi waat fii seeti waat ki nga xamante ni mooy loo alalu Serigne Saliou bëgg a waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam lenn ci tolluwaayu réew mi waaye itam lenn ci li nga xamante ni mooy social bi nga xam ne mi ngi ciy dimbali mi ngi koy dund ak jaami yàlla yi xam ne mi ngi bokk ak ñoom fépp foo ne mi ngi fay ñi xamante ni mooy ñi ko sama borom booleel ñu wóolu ko yaakaar ko doyloo ko te di di ko bàyyi xel saa su ne. loo alalu Serigne Saliou ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar waaye ñu ngi lay dalal ci plateau bi nga xamante ni mooy plateau Salam Vision ci biir émission bi nga xamante ni mooy xam sa démb waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi e, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm ak ci salaam. di nuyu mboolem fu ab jullit nekk ak mboolem koo xam ne yaa ngi béggee loo alali sëñ Salim moo xam nga xam ñu walla nga dégg ñu mosoo ñoo gis. wala ñooy jëflante ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Mm-hmm. di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha xalifa général kudd murit mm-hmm. euh, mu yàgg fi lool te ànd ko wér. noonu lañ koy ñaanee xalifa Baye Fall noonu lañ koy ñaanalee Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Salim. Mm-hmm. mi xalifa Serigne mu yàgg fi lool te ànd ko wér. amiin yaa rabbal aalamiin. noonu lañ leen di nuyu yéen waa Salam Vision. di am mbégte ak kontaante. te ci waxtu wu ne saa wu ne ngeen ñëw sunu kër ngir lu xew ci réew mi. wala lu mat a leeral rek ngir ñu waxtaan ci ñu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu mboolem koo xam ne suñu soppee nga ak suñu wóllare ak foo mën di ne ci biir réew mi bitim réew hmm. may nuyu ñëpp di leen wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu Serigne Dame Lo wala Lo alalu Serigne Saliou bi nga xam ne moo njëkk siw te gënal ñëpp itam macha allah rabbi jërëjëf ci nuyoo ba am solo boobu waaye itam jërëjëf ci ñaan yi ak mbooleem kàddu yi nga xamante ne rek o yëkkati nga ko fi yàlla yàlla sama borom def ko yiw te wàccee ci askan wi te ñu ñaan gi macha allah rabbi ñu bëggoon rek waxtaane jamono bi tolluwaayu réew mi fi ñu tàmbalee mooy euh, ñëpp def nañ ko actualité waaye man def ma ko actualité li ma ci bëgg a laaj rek leen la mooy accident yi nga xamante ni ñi ngi tegloo jamono yii ba démb ci guddi démb moo ci mujj ci gaarum Ndakaaru est-ce que leen li fi mu toll nii ndogal la waaye wala est-ce que leen li euh, euh, du ay sacrifice wala yu ni mel yoo xam ne ni daanaka ci fi jamono toll. waa xam nga euh, accident yi. Mm-hmm. wala ni muy toll ci réew mi. Mm-hmm. Euh, waxtu wu ne li ci jiitu ci nit ñi mooy. Mm-hmm. Euh, suñu borom mooy aji kiy dogal. waxtu ne liy am rek. yàlla moo koy gën a xam doomu aadama bi. Mm-hmm. te kenn ku nekk ak app bi ngay demee ak ni ngay demee ak ni suñu borom dogalee ngay demee. walla mm-hmm. ku li xaalis noonu lay demee doomu mu mënuñ ci dara. Euh, waaye dee tamit am na ñu koy gàttanu am na ñoo xam ne léeg-léeg ñoo koy sabablu. Mm-hmm. Euh, loolu liñ ci mën a wax mooy accident yi ban ciy wax du tey waxoon nañ ci bu yàgg a yàgg. xam ne mboolem ñiy émission yi ni def wala yeneen yi wala biir Salam émission waxoon nañ ko ci du tey mm-hmm. waaye li ci ëpp solo rek ñu mën koo wax mooy lenn li man nga jàpp ne càggante yenn sëfoor yi la. Mhm. donte du ñëpp. Mhm. yenn yi mën nga koo jàpp ne oto yu ñàkk baax lay doon. Mhm. yenn yi mën koo jàpp ne nit ki dana yor paan oto otom dana paan sax. mu di ko sooxaale. ba mu indi leneen. jural la leneen leneen da nga xam ne oto bii na nga nay caa def xaalis. wala yàq ko loolu sëfoor si lañ ci soññi rek wala borom oto yi ñu former ci loolu. ku ci yor oto loo ci dégg buree bu ci bokkul nga dem defare ko ba lay jur leneen. Mhm. ba tey boo yoree oto ñu ne la karta yi am na problème nangam mu ëllëg bu jékki-jékkee fàq loolu yaa ko tey ndax mënoon nga ko defar bu yàgg te bu amee bu boobaa mën naa bañ a di keneen mënuñu mhm. dox tamit di tuumaal kenn wala ñu wax ci réew mi naan ay sacrifice la yooyu mhm. parce que ñun ci sëriñ lañ bokk mënoo doon yàpp ba pare di xas der kon mu am na loo xam ne mënoo ci tuumaal kenn boo ne sacrifice doo xam kan moo koy defar ku dul def waaye nan xam ne tamit aaxiru zaman la nekk jub jamono. Hmm. Euh, ci la ñu nekk. Euh, koo xam ne mujjug jamono ci la ñu nekk rek. Hmm. lu bare bare da ko moytu. Hmm. te nit ñi ñu farlu ci ñaanlu te farlu ci sarax. te farlu ci jaamu yàlla tuub jéggulu suñu borom. ndax euh, réew mi moom day tàng tàng goo xam ne bu tolloo ci waxtu yooyu. li ci mën a dimbali nit rek mooy ñaan ak sarax ak ndimbal. loolu nag waxtu wu ne waxoon nañ ko fi ba joxe woon ko fi loolu jàllale woon nañ ko. Mm-hmm. kon accident yi du damay jàpp ne chauffeur bi yor ay nit. Euh, sabab lu ngir ñooñu faatu ndax bu doon moom a xamul ndax danañu mucc wala déet mm-hmm. xamul ndax yam na mbokkam wala déet mm-hmm. kon ñoom nit la na nit ñi liy am mm-hmm. nekk ak na muy demee at euh, la cay xew loolu rek a wax macha allah mu doon lu am solo coow li dafa bëri ñi naan ndax am li nga xam ne mi ngi koy yóotu nga xam ne coow dafa bëri sax loolu bokk na ci te ba nga ciy wax defe naa du woon tey man mi am na ci jokkoo boo xam ne jokkoo woon nañ ko ñu woo la plateau direct nga am loo ci leeraloo looloo tax sax ma tàmbaleewaat jotaay bi ci question bi nga xam ne moom laa ko ubbee ndax réew moom xam nga bu jaxasoo gars yi xamatuñ fu ñu jëm ku nekk daal daal di bëgg a sa xel rek ngay daal di bëgg a demee. waa xam nga loolu. Hmm. Euh, nit ñi wax rek. wala sëriñ su génn naan diw mooy sacrifice da ngay wax la la neex. Mhm. wala nga bëgg bës wala leneen. Macky Sall moo réew mi. Mhm. Eh, moom mi jot ba jot ci réew mi. Mhm. tey bu réew mi doon tàkk bu ci bokk njabootam njabootam bokk ci baa doomam baa alalam baa sëriñam. baa ay maamam a ngi fi tëdd neneen ak neneen. kon kooku day ñaan ci réew mi jàmm. bu dee Ousmane Sonko la même chose tey mi ngi ñaan réew mi. di ko laaj di laaj réew mi. tey jii moom. bu réew mi doon tàkk dana ci bokk mbaa njabootam mbaa alalam mbaa doomam. kon kooku tamit yaakaar naa dara loo xam ne day jar mooy yàq réew mi wala def ay secret fi bon. Mhm. du ko jar loolu dana koo gis ci àdduna mi ngi ñàng. xalifa mhm. ku man di doon pas bu fi nekk sax. Mhm. yaa ngi wut lu la musal ci parce que ñaan ak dund ñoo yem. voilà ku ne day am moo xam nga gëm sëriñ bi ñàkk koo gëm. ku nekk yaa ngi ñaanlu ji ak façon ñaanlu bi ngay ñaanlu ji. ak lu man di doon. dëgg la nag am na xam-xam yoo xam ne la laaj maar di yem ma léegi loolu du ma ci man a sori parce que tey dara mënut a xew yow fekke woo yëgoo tinoo santuñu la nga bëgg ne diw moo ko def. Mm-hmm. loolu boo boo ko waxee rek da ngaa wax ngir far wala ngir naafiq. Mm-hmm. parce que asgoor kenn du ko tuumaal te nit looy wax fii da nga ko wax ëllëg. Mm-hmm. te man bëgguma wax lenn loo xam ne. tey damay wax loo xam ne ëllëg dañ ma ciy jam parce que li ko waral mooy. Euh, muy état ku dul état ñun sëriñ leen te mm-hmm. sëriñ daa yaatu ginnaaw te mm-hmm. am lante na ñoom ñëpp jàmm mm-hmm. te côté bu ne ñi ngi lay ñaanal tey mën nañoo wax ñi ñii gisa ko ni ñu wax nii ñeet gisa ko neneen waaye li man mën a wax ci côté boobu mooy sëriñ buy génn naan la ay diw moo def kiif moo day wax la ko neex rek parce que kuy dox ci adduna yaa ngi ñaan yow sëriñ bi wax loolu sax am na sëriñ ñu la sut fuuf te yaa ngi dem di ñaan bi kenn ku nekk na ak kala yor man mm-hmm. mm-hmm. eh, kala ñor mm-hmm. yow mi wax loolu sa waajuru góor sa waajuru jigéen ci ñaan lu lan dëkk guddi ak bëccëg ku dul ñaan lu ci àdduna am xam-xam nag ku nekk ak lam la jaral ak lam la jarul kenn ku nekk tamit fi nga toll fa ngay jëfe ci ci ci ci wàllu ñaan ak lu mu mën di doon kon na mm-hmm. ay diw moo def sacrifice état bi la ak Sonko man góoma yooyu mm-hmm. euh, boo gëmee yooyu ba gëm ba gis loolu mm-hmm. boo dee sëriñ amal personnalité ju toll fexe la ko fànq wala nga dox ngir lu indi jàmm jooju da nga koy yàlla da lay fay ci àdduna fay la àlaaxira loolu moo macha allah mu solo loolu macha allah wax nga ko léegi ci sa biir wax Macky moo yor réew mi ndax moom la yàlla jox réew mi mu doon président de la ji tolluwaayu jamono ak politique digganteem ak opposition bi ñëpp di xaar naan troisième mandat nangam sangam lan nga ci mën a leeralal askanu Sénégal rawatina internet yi lay bàyyi xel. waa xam nga loolu li ma ci mën a leeral mooy eh, Macky Sall daa jiite réew mi. Hmm. ala kulli ëllëg keneen da koy jiite wala mu dem keneen ñëw. Hmm. te bu boobaa jiite réew mi la ñu séq. ñu koy topp politique leen ko topp. Hmm. ñun sëriñ si ñu ëpp ay nit. Euh, ci réew mi ndax am na ñu yaakaar àdduna ak alaaxira mhm. su ko jébbalu ñu jox ñu seen bopp. Mhm. kon lu ñuy wax day doon loo xam ne lu ñuy xam la ni doon. muy moom. mu xëccoo réew mi indi troisième mandat mu ñàkk koo laaj. Mm. li ñu ëppal solo la mooy ci réew mi ñu ñaan fi jàmm. surtout te jàmm jooju ak ku man di doon muy moom muy ñi bokkul ci nguur gi ñëpp ñoo ci war a jiitu dox ci waxtaan ci mm. parce que jàmm jooju moo indil mooy indil Sénégal jàmm. Mm. ndax moo ñuy may jàmm. ndax wax naa ba tey rek moom ne bu doon tàkk sa alal bokk ci. baasa doom baasa waajur baasa sëriñ. da ngay ñaan ci réew mi jàmm. te ay kenn du xam. fan lay mujjee. Mhm. ni jàmm mel rek jàmm mën nga xëy si ba yéene ko yéene ko ñëpp ñëpp mën nañ ko bañ am waaye yow da nga koy am. Mhm. ay tamit mën nga xëy suba yor ko nangam mais suñu réew mi. Mhm. mag ñu baax ñi dañ fee lu mën di ñëw. coow ak burwee rek lay àndal. ala kulli àllin waaye suñu borom la ci wis ndox mu sedd guy ndax nag mu néew mu fi nekk dañoo jëfal yàlla loo xam ne suñu borom dafa am lu mu leen di suturaal moo xam ne kilifa diina bu mu mën di doon kon ñooñu ñaan nañ ñu ñokk ko tey Sénégal ba ñu koy ñokk wala ñu koy ñaan kilifa yi fi nekk dem nangam. Mm-hmm. boobu Macky Sall amagul Sonko amagul keneen amagul. Mm-hmm. lu ne xew na ci réew mi waaye allah kulli àll rek. Mm-hmm. jàmm rek ci la lépp du mujj ak lu man di doon. damay gëm ne jàmm ci lay ci lay ci lay ci lay mujjee. ndax politique ak coow ñoo ànd. politique ak leneen leneen ñoo ànd. bu dee troisième mandat bi. gis na ne leneen wala day jur leneen lu man di doon lépp ay waxtaana la hmm. chaque jour bu élection jur si lu man doon burwee day am ba ñëpp ne réew mi day tàkk suñu borom bi si ndox mu seen dugg yi hmm. jàmm jooju rek lañ ciy xaar hmm. et puis tamit ci la nekk di ko dox di ko ñaan ku ñu diggal tamit loolu lañ lay diggal pour nga ñaan ci waaye ñun ci politique euh, amuñu kii moo tooñ kii tooñul kii la ñuy àndal déedéet ñun li ñu waral mooy wax lu baax ak defar la ak gis loo xam ne day jëme ci réew mi loo xam ne baaxul ñu fexe nañ ko fànq. Mhm. moo xam ci zaahir moo xam ci baatin ci loolu rek moo ñu ëppale importance. macha allah Sonko ak Sonko woowaat nañ ko defe naa ne le lañ ko woowaat di tombeeg bisu màggalu Porokhane bi nan lan nga xalaat ci avenir u Sonko moom itam digganteem ak Adji Sarr ak yoon. Euh, waa xam nga loolu. Euh, ay digganteem ak Adji Sarr euh, mboolem ñi ma ci mës a jël mosuma nangu di wax ci loolu xam nga nit. Euh, toujours lay wax na lay leer. Mm-hmm. te euh, réew mi dafa toll foo xam ne kilifa yu bari ñëw ñoo xamul tax. Mm-hmm. soo waxee lu arrangé wul kii. Mm-hmm. suba bu soobee yàlla ñu dugalal lay saaga ba noonu a boo waxee ñeneen ñe leen arrangé suba ñu dagg say wax di ko partagé fu mu di doon. réew mi foofu la toll ci nit moo tax doo nangoo fesal yenn yi di wax waaye loolu li ma ci a ak Adji moo def ak deful yàlla rek a xam. kenn du mbàkkaaru ñu nit du ñu tooñ lu mu di doon. nit tamit euh, ni mu waxee rek. Euh, bu jëfee noonu da xam ne moom mhm. nit ki tamit ay kàddoom da lay doy wa ilaa ay kàddoom bañ laa doy. Mhm. bu dee loo xam ne moom taxaw na publiquement ne deful loolu wala nangam ak lu mu mën di doon. Mhm. a ñaan rek mooy suñu borom def ci jàmm. ala ak lu mën di xew. mooy dañuy ñaan ci réew mi jàmm lépp génnaatu ci réew mi. ndax day dem ba dem na ba toll foo xam ne doonatul ñaar rek. yëfi réew mi la. ginnaaw yëfi réew mi la loolu waxtaan ci réew mi la. dootoo waxtaan diggante ñoom ñaar. ndax réew mi la. waaw ginnaaw ñu yëfi réew mi na rek li ñu ci war mooy ñaan ci réew mi jàmm rek. ak lu man di doon lu man di xew. Mhm. ñu ñaan ci jàmm. te la cay gën rek suñu borom di ko def. allahumma amiin macha mhm. allah rabbi mu mel ni foore nañ ci wéyu bay ñu ni loo alal Serigne Saliou dafa am ay mbo ay sëriñ yoo xamante ni dañoo ne ci biir réew mi def maanaam benn xeetu association boo xamante ni tey jii noo fas yéene jàppale Macky Sall wala ñooy ñaanal Macky Sall wala ñooy ñaanal état. ma bëggoon xam ndax loole am na amul ak lu lan nga ci lan nga ñu ci mën a leeral. Euh, waa loolu li ma ci mën a wax mooy euh, loolu demewul noonu. Mm-hmm. dëgg la nag euh, bëri na sëriñ suñu jox bopp ñu toog waxtaanee ko réunion. Mm-hmm. fu kenn newut. Mm-hmm. du sëriñ sépp nag ci Sénégal. waaye ñu ci bari. yàlla dogal suñu jëmm ju xeeb ji ñu jiital ñu ci. loolu defuñu ko ngir ñaanal Macky Sall dañ ko def ngir. ñaan ci réew jàmm benn ñaareel bi mooy. dañuy sol sunu dàll. Mm-hmm. fas yéene gisante président réew mi. Mm-hmm. Euh, ñu ngi ciy waxtaan ak ñenn ñu ne ci état bi. Mm-hmm. Euh, demaat fi jóge fa dem ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. Euh, moom it ñu ngi ciy waxtaan ak ñenn ñu ko jege ngir sol dàllu jàmm. ngir ñaan ci réew mi ak dal ñaan ci jàmm. parce que nag loolu mooy li ñu war. bu nee sëriñ lan dañu nekk ci réew mi. chaque ñu gis luy taal réew mi di toog naan dana tàkk ak dana bombe. dañuy seet ni ko war a fay ñu fay ko. loolu moo ñu ëppal aw yiw. moo tax na bi ñu waxtaanee. dajaloo nañ ci loolu yàlla dogal suñu borom dogal suñu jëmm ji xeeb mhm. ji. ñu jël ñu jiital ñu ci loolu. Mhm. loolu nag euh, doon loo xam ne lu rëy ci ñun la doonte matewuñ ko. Mhm. ñi ci ànd ñëpp ñu am confiance jiital ma ci. moo taxit balaa yàgg daal incha allah danañ def de presse bu yaatu boo xam ne. danañ woo presse bu Sénégal bépp bu soobee yàlla ñu def ko. danañ doxin ci président bu mu mënta jotin ci moom ñoo ko jege danañ ci waxtaan ak ñoom. bind suñu leetal ngeen ñaan ci réew mi jàmm. ñu xool nañ ko doxale noonu tamit lañ koy ñaane ci Ousmane Sonko te danañ daan fa dem danañ ko dox mhm. ñu ngi ciy waxtaanal ñu ngi ciy war a waxtaanal mais loolu ñëwagul buñ jógee ci poroxaan yi incha allah la ñu def conférence de presse bu yaatu boobu woo télé Sénégal yëpp mhm. ñu fas yéene ko def incha allah bu soobee yàlla mhm. ndax nag boo nekkee mu réew di sëriñ moo xam ngay ñaan wala ñaanoo nga am fii taalibe nga ñàkk ko fi da ngay ñaan ci réew mi jàmm jàmm ji nag mooy duñu toog naan réew mi dana tàkk ak bombo yeeg déedéet gëmuñu loolu jàpp na ne réew la réew mi réewum lu mën di ñëw rek coow lay doon ak burwe waaye di mujj fenn. te loolu nag nu kilifa yëpp a ngi ciy dox. ku mm. jàpp ne kilifa bu mu mën di doon doxoo ci ngir jàmm yaa ngi nax sa bopp. Mm-hmm. kilifa yi li ñuy wax dañ koy wax ci suuf li ñuy dox dañ koy dox ci suuf ñun ñi am nañ ci lu ñu wér. Mm-hmm. moo taxit noonu la ñuy doxee ñun allah bu soobee yàlla fas yéene dox ci tànki jàmm yooyu. Mm-hmm. ngir ñaan lépp rek ci réew mi jàmm. suñ ko amee sant ko yàlla buñ ko amul ñu xam ne def nañ la ñu ndax ab jullit bu ne sàmm nga ëllëg ci li la suñu borom dénk mhm. muy ñi lay yaakaar muy ñi aju ci yow mhm. tey bu doon Sonko doon xeex Macky Sall mbooloo di xeex mhm. man dana am ay taalibe yu bokk fee dana am taalibe yu bokk fee ah. ñeent sëñ Muntaxa dana am taalibe fee dana am bokk fee kenn ku ne danga ci am say taalibe say ñaari taalibe xeex ginnaaw nag suñu bu xeex amoon suñu ñaari taalibe xeex ci bépp côté bu man di doon ñu ñaan ci jàmm rek jàmm ji mooy dox ci wax ci def ci ñaan waaw loolu daal la ñu jiitale te incha allah bu soobee yàlla ñi ngi ci eh, di ci dox di ci toog bu ñu jógee Porokhane bu soobee yàlla dana def conférence de presse boobu te lépp luñ ci mën danañ ko dox ngir jëmi yàlla ak yeneen ci. Mm-hmm. donte nag euh, politique gu ñu ànduñoo kenn. Mm-hmm. lu dul dem cité waaye ci réew mi. Mm-hmm. bu élection jotee ñu dem woote ji ñoo toog jàpp suñu jàmbur. loolu la rek. macha allah jërëjëf sëñ Dame Lo loolee yal na ci yàlla sama borom teg loxo te barkeel ko ndax jàmm moom def naa ne ku koy woote moo gën ku ko woote wut te ba ma juddoo ba tey musuma gis ku ni doyal na ab dàmm kon jàmm moom def naa ne gannaaw kenn du ko doyal moom ñaan ci jàmm ndax mooy li bu fi xew-xew amee faaw kenn ku ci ne am ci lu la lu lu la ci naxal ndax sa mbokk dana ci ne wala sa deret wala sa alal wala lu mu ci a doon kon loolee sans borom yàlla na leen ci yàlla tegal loxo te tegal ko defal ko ci su ko defee tam nga xamante rek fi ma bëgg xam laata ñoo jeexal rek sëñ Dame Lo ak social sëñ Dame woote ñeme dajale mbooloo ñeme teral mbooloo maanaam mel ni xeeti jaamu yàlla ci biir jaamam nii lu waral sëñ Dame bëgg social te ñeme social. Cheikh dana woon. Hmm. dabe ndab te boo dëggee raw ci àdduna hmm. da ngay nangoo doxe ndab ba pare nangoo nanguy tuuma euh, bi ñu nekk hmm. gën ñun ñëpp te moom lan yaakaar hmm. te mooy suñu lépp te moo ñu dàqoon a joxe Cheikh euh, Béthio euh, ku ne xam ne lu am ci àdduna joxe na ko. mu joxe doon jeexal. mu jeexal. ba ni ko fi njabootam wutoo di def noonu. Mm-hmm. Euh, man tant maa ngi dund. Mm-hmm. dégg man. Mm-hmm. sama alal ju ma yor. Euh, jaami yàlla kese ak taalibe sëñ Saali bi. ak képp ku goo xam ne rek yàlla dogal na la ci nga bokk. lu ñu am danañ ko bokk ak yow. loolu xaaruñ ci ma Samba xaaruñ ci ma Demba. Euh, gis nga loola waral man amul. dëkk bu ma tàntalu sëñ Saaliw mhm. gis na suñu Saaliw boo ko bëggee muy dëgg ci yow mhm. doo toog rek di ko waxee mhm. da koy wax jëf ko dox ko ñoo xam ne loolu dëgg la ñun fu ne tàntal nañ fa Serigne Saliou. Mhm. Euh, amuñu compte bancaire amuñu dara. Mhm. te lu ñu am. Mhm. Serigne bee ñu ci dimbale. te amul nag lenn lu ñuy woote di ko waajal wala di ko wutal condamné wala di ko daal dañ koy fas ci sëñ bi rek fekk ñu ci. ak ñi ñu yàlla booleel ñu gëm ñu yaakaar ñu wóolu ñu. doyloo ñu di seen alal di leen ko jox. loolu tax maa ngi laa sa appel balaa yàgg dara incha allah bu soobee yàlla. Euh, bis bu mag bi nga xam ne. Euh, at mu jot dama koy dama koy def. ren ji incha allah bu soobee yàlla liñ ci fas yéene def yàlla rek moo xam ci kàttanu suñu borom. Hmm. muy berne yoo xam ne mardi yem si. Hmm. boole koog nag fas yéene nañoo xool li nga xam ne kaamil alxuraan ak ay dolli xasida hmm. yoo xam ne dañ koy def def ko ci ay yu rafet. ci kàttanu suñu borom ak ay loo xam ne daal bëgguma ci nekkagul di wax. loolu émission boppam lay laaj incha allah bu soobee yàlla. ci kàttanu suñu borom tamit moo waral fan yii yëpp àdduna bi yëpp dañuy seetaan ñu ne ci tournée yi ci àll bi. Mm-hmm. dëkk bu ñu dem dem feneen. Mm-hmm. loolu dañuy liggéeyal Serigne Saliou. Mm-hmm. te ñun liggéeyal Serigne Saliou man damay wax ne ban may sàkk Serigne Saliou woo tax. te man gëw ma kenn ku dul moom. nee naa leen bu yàlla taxawoon. yeneen bi taxaw Serigne Touba taxaw Serigne Saliou taxaw. ma romb leen dem ci Serigne Saliou. parce que moo ma doy. Eh, ki nga ki nga jaxasoo rek moo la man a xam te ñun ndaw ñi. xamuñu kenn ku du sëñ Saliou. Mhm. ndax moom lañ jamonoonteel. te lu nekk ci ndaw ñi rek. moom mhm. moo ko ci def. bi mu ñëwee moo gën a yokk daayira yi. gën a yokk Touba tel yi. Mhm. yore mi ëpp ñëpp nag. xaalis. boole ko foo ko masaan a fekk ci àdduna dara àdduna ñëwul ko. ku mel noonu nag bu la ko yàlla jaglelee nga bëgg. mu ne mu bari da nga koy roy ci dara. roy ko ci joxe. wala roy ko ci màggal Sëñ Tuubaa wala roy ko ci sant Sëñ Tuubaa. waaye bu ko roy ci di ko mbubboo. ndax yoon wi daa bëri ñuy mbubboo siñ Saliou mhm. yoonu murit mhm. ñett ñoo yor xorom si mhm. sëñ Saliou sëñ Fallu Seex Faal te gars yi bëgg a dëgg dëgg dëgg ndax nit ñi wala lu man di doon ñoom ñooy mbubboo na gëm na leen ñu bëgg la ci te ñooñu boo leen bëggee dafa am nooy comportement dafa am nooy mel du ci ay wax du ci cëfër cëfër liggéeyal sa diggante ñooñu ñu xam ñooy ñoom man de tant que maa ngi dund di ko man amul weer wu muy dugg te du ma ci tàntal seen misaal yu ñetti yoon. te du ma ko sargal. Mm-hmm. amul ci kaw suuf. tànk maa dund te rek laay ñaan suñu borom bi. te ku may ñaanal damay ñaanal fu ma toll may gën di bëgg seen misaal yi. au ma jëneen yi te judul jooju. Mm-hmm. yàlla mi ñu ci xam na loolu. tey bu ma amul xaalis au dara ma xëy. am sëñ Saliou rek. Mm-hmm. damaa doy lépp lu man di doon triser wu ma ko nag. ñi ma xam te jax sama xam ne du ma ko caaxaan. Mm-hmm. ndax di wax ci moom. Mm-hmm. koo xam ne man damaa jàpp bu woon sëñ Saliou duñ ma saak. man man man man kooku aw ma fayam ci àdduna. moo wu ma ci. waa këram ak njabootam bu leen ñëpp royoon ci àdduna. billaahi wallaahi benn bëree doo am. xool ñuy génn di mbubboo sëñ Saliou wala di wax lu dul loolu mas ngaa dégg sëñ Cheikh wax. mas ngaa dégg kenn njabootu sëñ Saliou wax amuñu jot googu. parce que dañoo xam ne waxal nit ku baax ak wàlliw la ca toll. Mhm. boo amee màqaam ak darajay toog di ko wax. Mhm. ëllëg da nga ko layee ak suñu borom. te ñi ko bu boo wala wax sëñ Saliou ma yar sëñ Saliou nangam dafa bëri. Mhm. waaye ëllëg la lépp di leer. doo di gis sëtam baa njabootam xoolal ni ñu mel. koo ci gis. mi ngi xel ko mm-hmm. ci liggéey ba mm-hmm. daara ja mm-hmm. nekk ca la ko war jàngale alxuraan nekk ca xale ya tël na lenn lantal muy seen diggante ak seen borom ak li leen seen bàyyi bàyyi ñu mel noonu kon amuñu amuñu amuñu seen fay nan roy ci ñu mel noonu ay royukaay la euh, moo tax daal berne yeeg sant yeeg yëpp daal ak social yi duggul te leen lu dul sëñ Saliou lu ñu moom rek jaam yàlla yokk moom. macha allah na yàlla ful yal yàlla yokk yal na yàlla xeeb te dolli macha allah rabi ndax jëfal waaju baax moom dana yegale jaam bi foo xamante ni dana kawe jotam lool yal na yàlla nangu lépp te ful ko incha allah rabi ci darajay Serigne Saliou Mbacke euh, ñi waajal Porokhane wax dëgg yàlla wax nga ko sànq lan ngay wax tey askanu Sénégal rawatina chauffeur seeg nu mu mën ci demee ci yoonu Porokhane bi bala may indi sama dernière question bi nga xam ne moom la ñu yëkkatee suñu rek ci barkeeb sëñ Touba ñëpp dem ci jaamu ñoo ci jaamu sëfoor si ànd ak daal. Hmm. Euh, ñuy dellu di gërëm sëfoor si di leen sant ginnaaw ban gerewee hmm. ñu ñëw ci sëñ Mouhamadou Mountakha. lam wax ñoom ñu def ko. loolu ab cër la. Mhm. te bàyyi xel sëriñ bi la. Mhm. ak doon ay taalibe ñu leen ci sant di leen ci gërëm. parce que nag bu du woon ñooma. Mhm. néewul kenn du dem Porokhane waaye. <laughs> dañuy raj raj doomu dana taal <laughs> dana doy waar ñu bëri tool doole yi tolloowul. am na ñoom paasu deux a yor seen oto dem am na ñu amul oto. kon loolu dañ leen ci sant di leen ci gërëm. Eh, di ñaanal si Muntaxa mu yàgg fi taal bu wér ñëpp fekk ko ca jàmm ak salaam. ñu def ko nan ko daan defe rek. man moom Porokhane ñëpp xam nañ fa ne waaw ah, maa ngi ca soxna Maguette Bousso généralu Maam Jaara boobu nga xam ne ku ne xam na ko foo gis weer balan ba rek mhm. xamal ne maa nga foofa ndax ñun suñ lépp nag fa lañ koy defee mhm. incha allahu rabbi ca ànd ñoom ñoom poroxaan ji ba poroxaan ji jeex mhm. ñu fay def suñ lépp at bu jot noonu lañ koy defee moom nit ku baax la waaye nag euh, ndaal ñu ngi ñaan sëfoor si ñu daw ndànk dal ndànk mhm. ku ci gëmmentu jox keneen mhm. ku ci munta dem te sonn ñaari weer joxal keneen ak Porokhane daa xaw a sori mhm. waaw doonte nag euh, dëkk bu ñëpp jëm force laalante mën a am waaye bu laalante amee mën naa bañ a garaaw bañ a metti ci kaw rek ñu teg ko ci dal akuk tey ak ndànk ñu xam ne ñoom it ay nit lañ yàpp ñoom it ay nit lañ ndax buñ sañoon dañ dem ci jàmm ñëw ci jàmm kii xëy di daw dépasse bu sañoon dara du ko yàq comme que ñoo bokk lépp rek dañ leen ñaan ci jàmm yegg ci rek. Mhm. incha allah rabi bu soobee yàlla ku la mhm. comme ni ko sëñ bi waxee rek. Mhm. ñu ñaanal ñu sëñ Muntaxa yàgg fi. yàlla ñëpp dem Poroxaan ci jàmm ñëw ci jàmm ku ci yàlla woo. yàlla nga ñëw ci jàmm dem ci jàmm. loolu lañ cey ñaan rek. macha allah fi may daanale rek mooy coow li demee réew mi te dal leen yéen yéen ñi nga xam ne yéenay sëriñ si diggante Abdoulaye Diop Khass soxnaam si nga xamante ni nee nañ tàggoon nañ dafa am coow lu bëri lu ci juddoo ndax fi ne ñi ngi tuumaal sëriñ si nee nañ yéen sëriñ si du ngeen yor jigéen waaw xam nga ñun sëriñ lan la sëriñ nit la <laughs> euh, du wàlliw bés bu ne nga wax du yeneen du xut bu saman doomu aadama la ndeysaan am na sañ-sañu bëggante. ka ko mhm. neex mu takk ko. Mhm. am na sañ-sañu takk. Mhm. soxna bu yàlla suñu borom dogalee mu war a tàggoo loolu la yàlla dogal. ku dul sëriñ sax doo ñaan laa wax de. xam nga sëriñ nit ñi dañu boole sëriñ ak naan ku dul sëriñ doo ñaan. ak koo man di doon ci àdduna rek ak xalifa boo man di doon. bis ñàkkul nga tàggoog soxna. wala nga yeewee ko mu dem. moo xam lu nit ñi yëg ak yëgul. te doonte tàggoo moom gënalul kenn. Mhm. waaye nag sëriñ si du ñu yor jabar moom loolu wax ju yàqu la. Mhm. parce que sëriñ si ñaata sëriñ a fi nekk yor jabar. jabaru sëriñ si ay noobul lan. Mhm. am na ñoo xam ne nëmmuñu daal boo dem sëriñ nag ba am présenté xam sa bopp. seen jabar yi ay noobul lan amul lenn lu ne namm baa lu ne seet leneen ak leneen. waaw ndax sëriñ baa xam nga sëriñ buy ñaan ci àdduna. jamono ji ñu toll ku man la ngay def dëgg-dëgg. noobul nga war a doon. personnalité kenn wër la ko. président Macky Sall sax yow lay wëri. mboolem ku ne ci réew mi dañ ngaa bëgg oto def ci million di wëri ab sëriñ bu man mhm. sëriñ kon amul ku ko ëpp valeur ci yow sëriñ bi boo xamee ka nga doon tamal la ngay def mhm. parce koo ñaanal tey mu gis boo liggéey day ñëw buy ñëw a indi keneen seet bu wér ko mënoon di xëy di ngay doon mhm. bis bu set dix mille dix weer bi ñaata la am na ñoo xam ne mënuñu ko am yow bu la ci yàlla dénkee bis bu set nga mën cee seetal fukki nit kooku sant yàlla la amul ku lay ëpp xaalis ci réew noobul nga war a doon sëriñ du métier seeni jabar ay noobu lan war a doon dañu lekk lu baax di tëdd fu nooy di yor soxna su rafet di jaamu yàlla seeni soxna di jaamu yàlla. Mhm. parce que loolu lañ leen di yor en tant que nag ñee àndoon na na loolu moom vie privée jàmbur la. Mhm. te man ñi ma xam ñëpp xam nañ ne. du ma wax ci biir prix euh, jàmbur ndax loo xam ne moom fekkee ma ban koy def. Mhm. Euh, nit ci ñëpp di am noonu laa ciy dégg. Mhm. li ma ci am rek mooy dama ciy maam. Mhm. su fekkee nekk na loo xam ne yàlla suñu borom dogal na tësuñu. yàlla mu ñu tas ba abadan yàlla leen suñu borom boole te may leen njaboot bu baax te barkeel. ah bu fekkee na nag yàlla dogal na loo xam ne erreur na bu am seen diggante. yàlla ko suñu borom bi di la su kenn ku nekk xelam. barkat seytaane bañ a dox seen diggante loolu la ni ñaan ndax man tey bu sama soxna tasoon ñaanu ma ko yàlla nit di ko waxtaane du ma neex te nekk lu ma gënoon te du ma ko bëgg te bëgguma tamit sama soxna tas kon bul yéene kenn soxnaam tas baa nga ci wax lu ñaaw vie privée kenn du ci dugg ndax na koo gëstu mm. gis ko mm. kuy dox ci àdduna rek am nga vie privée boo xam ne bëggoo ko ko laal. waaw loo xam ne daal buggoo ko ko laal. Mhm. ni nga nëbbe say ayib ba bëggoo kenn ku la ko xamal. ngeen ko nëbbe noonu ayib bi jàmbur. waaw bu ko defee rek noonu euh, jàmm mën a am. Mhm. ku mën di doon rek. Mhm. bis jot na nga def loo xam ne waroo koo def wala loo tooñee suñu borom. kon liñ ci war wax mooy loolu la war a doon. kon nag ni nit ñi xam ne. sëy boobu tas naa am tasul mm-hmm. yàlla nañu suñu borom boole mm-hmm. te diine seytaane seen diggante mm-hmm. moom Ablaye Diop Xaas ak Soumboulou te suñu borom boole leen ci jàmm ak salaam ñu am njaboot bu dee li gën ci ñoom ñaar ñëpp yàlla na ko yàlla def booy ñaan loolu ngay ñaan waaye nag doo fekk ñoo xam ne tësuñu sax wala bu na amoon problème nga mel ne danga cee bég loolu yëfe naa féq la loolu kenn du ko def am jullit da yéene sa moromum jullit jàmm te ñun ñëpp ñoo bokk li ni si bari na loolu waaye ku nekk ak la nga man mhm. gis nga ki man seet sax na ci yem mhm. du tee dana am xaalis mhm. du tee suba mu gëm ñeneen ak ñeneen koo gis ku ne am na ñu koy ñaanal ñaata sëriñ ne ci àdduna chaque jour ku ne ak ca sëriñ ba ngay jëm kon jërul xasante jërul werante jërul yàqante yàq der même bu dul sëriñ si sax àdduna jërul loolu nit ñi nan ànd ci jàmm ànd ci salaam te yéeneente jàmm loolu rek laa am ci loo xam ne wax dëgg yàlla ma koy wax ndax wii turee jàmm moom ba nu tukki du ma ci bugg lu ma xam bugguma cee tooñ te bëgguñu tamit wax leen loo xam ne day déranger di. macha allah kàddu yu mujj lan lay doon ñu yëkkatee ko jotaay bi macha allah. waa ñaanal Cheikh Mamadou mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ak njabootu maam borom Touba gépp di ñaanal mboolem foo xam ne sama taalibe fa wala sama soppe wala sama wóllare suñu mm. borom defal la jàmm. Mm. may jégalu mboolem ñi may mm. man damaa naqaree jot ba yëgg ci loolu yàlla xam na loolu. Mm-hmm. maa ngi koy tuubal ñëpp di leen jégalu. di wax na ku ma jotul rek waakaan. Mm-hmm. maa ngi koy jégalu ñëpp wala ma sañoon Mm-hmm. kenn ko nekk danga ma jot ku ne danaa dagg sa yitte ñëw sa kër. Mm-hmm. waaye nag loolu la suñu borom bi di di dogal waxtu wu ne saa wu ne. Mm-hmm. ko nag ñu ngi jégalu ñëpp di baalu ñëpp àq di ñaan suñu Cheikh am suñu Salim. mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ak du Mamadou Muntaxa. ak sama ñaari waajur. ak sama soxna ak sama njaboot suñu borom defal leen jàmm. amiin waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf lu ne fàng di su ko woon borom mi ba tëte lu nit ñiy laam-laameeg ak di ko weet di waxoon naa leen ku waru naaru góor jaar ci mpencu tëj fa juróom-ñaari bopp luq fa fukki bët ñaar ne ma bu leen dëppee rey fa nekk wërees na koo gam ne naa leen weet di gis bokku ci ku weet di li may wax ci wàllum listixaar ak wàllum seet ak wàllum ñaan dala di seeti sëriñ daamloo dam daamloo di ku sëriñ saaliw tàggat ca daaraam joojee sëriñ saaliw mbake daal di koy yar sëriñ daamloo lu mu def daal di nga ca daal di teg sa bët ubbi ji leen journal observateur nee na nu waajoojee loo wax ci moom am na loo bàyyi Sud Quotidien moo dëggal loolee di Serigne Dame Lo nee na nu bisab Serigne Saliou boobee daal bu jotee Serigne Dame Lo lu du wàllu berndeek lépp loo xamante nii lu war ca bis ba Serigne Dame Lo dina ko daal di def Serigne Dame Lo nekk ko nga xamante nii day yëngu ci wàllum seet ak wàllum listixaar kooku daal ku mu ñaanal noo man di def da ngay delsi man mi am naa ci lu ma leer Sud Quotidien mooy dëggal loolee ubbi ji leen laa turbe ne di ngeen fa fekk Serigne Dame Lo moomee nekk foofee ndeysaan ab seetkat nekk koo xamante ne nii ku Serigne Saliou Mbacke may la ku yàlla baaxal la ci Serigne Dame Lo ma ne ko soo ko bëggee jot nooy def ñu ne da ngay woote ci 77 215 33 77 215 33 Serigne Dame Lo mu nga noonee gaa ñi waxoon naa leen weddi gis bokku ci te waxoon naa leen lu ne fang deesu koon boromi bët Serigne Dame loo ngi noonu nekk ah seetkat boo nga xamante ne nii ku suñ borom baaxal la nekk ku Serigne Saliou tarbi la ah nekk ndongaam Serigne Saliou ci Serigne daam loo weddi gis bokku ci man mii defal na ma ma gis ci sëriñ daam loo mu nga noonee gaañi bu ko kenn tardé numéro baa nga noonee di 77 215 33 ci sëriñ daam loo sekkatab ba yàlla baa ngi noonee ah def mu jeex sëñ daam loo mu nga noonee ci sëñ daam loo defal nit ñi gis. lépp xëyee ko l'observateur nee nañu waa joojee loo wax ci moom am na loo bàyyi de te ne woon naa leen ku waru naaru góor jaar ci penc toj fa juróom-ñaari bopp lu fa juróom-benni ba dóor nit na koo gëm barkeb sayxi faddilu yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaaw Bienvenue sur Salam Vision. Thank you.